abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, se ne ñu wax nag lu jëm ci wàllu nag procès bi war a am suba ci diggante Adji Sarr ak Sonko mu mel ni foofee ca cité kër góor gi nemmeeku nañ fa ab woto boo xam ne rek waa BIP ñoo ko daal di moom foofee ca buntu kër Ousmane Sonko ñu daal rekk rek dellusiwaat file nag ci Ndakaaru daal di wax jëm ci journaliste bi di Mati Sarr ñaaw ginnaaw moomee ñaareelu retour de parquet biñ ko daal di defal foofee ca Ziguinchor mu mel ni situation ba ca gox ba. ba daal di nay rek calme bu baax a baax rawatina ñu dëkkee foofee kenn rek daal di génnul dem fenn ñëpp rek ña nga daal di toog rawatina foofee nag nga xam ni moom mooy ca gox ba ca nag booru kër Ousmane Sonko ñu ngay wax ni itam gisuñu rek lépp lenn loo xam ne yëngu-yëngal la. abonné wul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen jàmm xibaar.